parce que ku nekk xam nga ni li xew tey fii mitit la parce que ay xale yoo xam ne dañu juddu seeni wayjur bàyyi leen fi ñu leen di toppatoo mu am lakk bu fi am lakk boobu yóbbu leen kon ñooñu amuñu bakkaar waaye nag war nañu ñaanal euh, euh, seen wayjur yàlla def ci ñoom xolu muñ parce que bu defee ci ñoom xolu muñ muñ boobu moo leen di gunge ba lu muy metti metti dinañ ko mën a dékku loolu mooy jafe-jafe fi am ci wàllu faj nag toujours dama koy wax faj ay bâtiment la mais ay nit la ay garab la ñett ñoo ko seq bâtiment yi ñu lay dugal garab yi ñu lay jox ak nit ki garab gi am na solo docteur bi am na solo trop bâtiment yi ñu lay jox am na solo trop mais nit ñi am nañu solo parce que nit boo ko bëggee faj da nga koy dalal ba xelam dal parce que ku sa xel dalul bu ñu la bëggee faj tam doo doo wér yàlla nag mooy wéral parce que docteur day faj mais yàlla mooy wéral mais dafa am ay conditions yoo xamee bu dajewul wax dëgg yàlla wér dafay jafe loolu moo tax wàllu formation mooy wàllu tàggat ñi nga xam ne dañuy liggéey ci euh, hôpitaux yi dafa nekk loo xam ne bis bu nekk dañ ci war a dugal suñu loxo parce que liggéey ci hôpital du xaalis mooy tax bëgg-bëgg la ak jaamu yàlla moo ci dugal doomu aadama loolu tax na dëgg la war nañ la fay mais yow ci sa bopp war nga am sa bëgg-bëgg ak sa yërmande ci doomu aadama ba doomu aadama bi boo ko gisee rek li ngay jëkk a xalaat ci moom mooy naka laay def ba sowe ko loolu moo tax d'ailleurs docteur yi bala ñuy jël jot seen lijaasa dañuy waat wax ni fu ñu fekkee ku loru rek bala ñuy seet tegam poosam daraa ngi ci sax dañ ko war a faj parce que faj boobu mooy li nga xamee ni moo tax ñu ñëw ci àdduna moo tax ñu jël métier bii ñu métier ñu am kon nag ñoo ngi ñaan yàlla mu yem fii waaye nag ay jullit lañu yàlla def itam lii xew tey ci bisu ascension ascension di feetu chrétien yi ñun ñëpp nañu delloo suñu bopp yàlla ñaan ci yàlla yàlla defal ñu xol ñu muñ te lii gëj fi bañ fee am réew mi jàmm rek am fi ak dal loolu mooy li nga xamee mooy message bi may jàllale salaamaaleykum wa rahmatulah.